ay ca jërë ngeen fu mbokki internet yi nga xam ne yéenay bàyyi xel seen bii di Fekke TV ñu ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkaarloo waat ak yéen comme ni leen koy toppale nag ci wàllu làmb di seeti mag ñi nga xam ne ay ndaanaan lañ ci wàllu làmb ay expert la rawatina tey ki nga xam ne moom la ñu dalal fekk si ko ba fi mu dëkk di Cambérène 2 war a waxtaan ak moom nag ci wàllu làmbu yaakaar naa ne miin ngeen ko di suñu père Modou Gueye nga xam ne icône la ci wàllu làmb saa bu rek da nga koy dégg wax ju rafet saa waxee rek da koy dégg boole bi nee naa la bu ñett amoon ci moom ci làmb sa kanam Père ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. waaw auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli Yonent bi ñu ngi sant waajur yi bu baax a baax Makan Ndiaye di la di rafetlu jotaay bi nga jotaay tey ak man tey fii ci kër gi fii si Cambérène 2 di kontaan ci ñëw bi nga ñëw nag ndax tamit eh, ndaw nga te ndaw lu am jom nga di ànd yow ci Fekke TV. di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla barkeel te nga jëriñoo ko ak ñi ngi ko bokkal ñëpp di la nuyu bu baax di nuyu askan wi di nuyu askanu làmb di rafetlu teewaay bi tey tey tey ci Cambérène kontaan nañ trop di nuyu nag euh, famille làmb bu ñu nee famille làmb ñoo tax di nuyu amateurs yëpp di nuyu association association des amateurs de lutte ak le président Goro Ndoye ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi ak membre bureau bi yëpp ñu kenn di leen nuyu di kontaan ci yow ci teewaay bi di nuyu samay bokk. bu baax di nuyu xale yi ci biir kër gi di nuyu sumay rek di nuyu ñëpp rek di nuyu ñu ngi topp di nuyu diaspora bi di nuyu suma rek ma nga ma nga ba Amérique ñoo bokk ndeeg bay muy Fallou be di ko nuyu di nuyu samay doom bay ñoo nga fa doom bay yëpp su ma ñu sant Bey ñëpp ñu nekk si jaspora bi nekk nekk Amérique du ma leen mënuma lim di di leen nuyu ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm di nuyu nag euh, internet yëpp di seetaan à travers Fekke TV di kontaan si yow di nuyu nag sama sëriñ. di ko ñaanal yàlla yokk leeram muy Cheikh Fall Baye Góor muy Cheikh Moustapha Fall di di sëtu Cheikh di sëtu di sëtu Cheikh bu wér di Cheikh Baye Góor im na Cheikh Moustapha Fall di nuyu doom ji fi nekk tey di def lu rafet di def di jàmbaar di Cheikh Ndigal Fall Cheikh Rokoye di ko ñaanal mu gudd fan ndax mu ngi liggéeyal mu ngi liggéeyal maamam ndax Cheikh Ibrahima moom mooy kenn ci réew mi bu sëtam nekkee fii di liggéey si réew mi lu rafet lépp lu ñu wootee Cheikh Rokoye ba nga fa Cheikh Ndigal ma nga fa kon dañuy ñaan Cheikh Ndigal yaa nu fi yàlla bàyyi may ko wér mu yàgg fi lool di nuy waa tubaak gépp di nuyu axlu paleen gépp di nuyu samay mbokk di nuyu laay bay Baye Fall ma nga Touba di nuyu xaadim Baye Fall ma nga Touba di nuyu Amet Isbul Tarxiya di sama jarbaat mu ngi nii dem waaw di nuyu waa Touba gépp di nuyu Yaam Seck di nuyu Birabar ma tëgg ñoom ñëpp bàyyiwuñu Birabar ma tëgg Jaañ Samba Yuga di nuyu Kodou ak Fatuma Samba yëpp di nuyu samay bokk daal di nuyu axlu làmb daal maanaam si gàttal ma kan ñu ngi nuyu famille làmb yëpp rawatina yi nag ñoo xew ñoo jërëjëf mooy suñu papa père père Modou Gueye ndeysaan xool ci nuyoo bi rek nga xam ne nit koo xam te ni icône la waaye papa tamit ci bis yoo xam te ni bis la rawatina mooy dimanche diggante Sa Thiès ak Reug Reug mu ñaari ndaanaan la lan nga a yi nga xam ne moom la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la makan dëgg la makan dëgg la euh, soo soo ma laajee si soo ma laajee si combat boobu soo ma laajee si combat boobu dina am solo dina am dina dina am solo ndax diggante diggante diggante diggante rek rek ak ak Sa muy combat bu am solo boo xam ne ñu ngi ci jëm dimanche mu nekk le cinq mars ci arène nationale ak Gaston production ak Makan Beng di ñaan yàlla nag Makan. yàlla jàppale ko di ko ñaanal bu baax yàlla jàppale ko bu baax a baax ci journée bi la cinq bi ndax combat combat jànq la combat bu ñëpp di coow la waaw combat bu ñëpp di coow parce que combat bi boo seetee ba si biir man su ma su ma su ma pronostic moom mooy cinquante 50. waaw ndax ku nekk mën nga daan sa morom parce que ñaari ñaari mbër la yoo xam ne bokkuñu bëre waaw kii mbëru mbapat la dafa yàgg ci mbapat bi dont mi ngi ci arène bi sax mais kii daanaka arène rek la xam muy saa te saa kees dafa gaaw. te rëg-rëg bërim dafa xaw a diib donte gaaw na mais saa moo gën a gaaw bëri parce que ñaari bëri yu bokkul la moo tax combat la boo xam ne combat jànq la ku la wax kii moo mën rek dafay wax waxu far mais ki ki mën yàlla moo xam mais dañuy analyse en tant que expert en tant que connaisseur de lutte en tant que amateur bu mag yàgg si làmb parce que 73 ba léegi makan ñu ngi seetaan làmb waaw ñu ngi seetaan làmb waaw am na yoo xam ne sax su ma la ko waxee si si làmb bi démb da ngay xam ne moo war a làmb bi tey xam ni waaw. Hmm. waaw xam nga waaw revanche mun nañ ko wax revanche ndax seetaan naa Pape Kane Double Less hmm. c'est Demba Diop. waaw Pape Kane mooy maamam mooy maamam rek. Hmm. mooy maamu Reug Reug rek. parce que euh, mën nañu wax euh, revanche la. mais si forme nii rek revanche la. mais la mais diggante Pape Kane ak Double bu njëkk ba. ak léegi bokkul ndax euh, Double Less moo jur le seigneur des arènes ci jamono yooyu moo jur moo jur moo jur Sa Thiès Papa Kane le prince des arènes mooy maamu Reug Reug kon lamb la joo xam ni lamb jànq la ndax ñaari forme bëri yi bokkuñu ah gis ah, Reug Reug gis naa ko diggante moom ak euh, pois bi mu yor diggante moom ak nees diggante moom ak euh, moom ak guy gi diggante moom ak Elton diggante moom ak Gris Gris 2 pois boobu mu yor ak pois bi mu yor diggante moom Sa Thiès bokkul déedéet dafa am différence dafa xaw a diis tuuti ci man xaw xawma lu ko waral nag xëy na dañ ne ko saakee dafa gaaw te bërëm du yàgg xëy na mu wut résistance ak endurance boo xam ne bu Sa Thiès dawee dal ci kawam balaa muy xalaat mu mun ko bloqué xam naa moo tax mu jël luur boobu un peu parce que yokk na pois boo xoolee bu rek yokk na poids waaw pois bi nag bu fekkee am na am na contact bu doy xol bi baax na mën na tenir bu amee am na bu fekkee am na coffre ndax poids dafay ànd ak coffre te Sa Thiès ndaanaan dëgg moom mooy moom mooy dëkku bëreetam ndaanaan dëgg mooy mooy mooy mooy dëkku bëreetu Sa Thiès waaw xaw ma nag bu Sa Thiès dalee si kaw guy gi bu dee bu dalee si kaw kaw kaw Reug Reug la fay fekk. mais waaw xam nga makan ñoom ñaar du ñu ay mbër du ñu du ñu ay du ñu ay xeexkat du ñu ay xeexkat ay ay ay mbër la yoo xam ni seen xeex wut bunt la wut bunt la mais ay bërikat lañu ay bërikat lañu ndax ñoom ñaar bokkuñu bokkuñu ni ñuy bëree xam nga saakees sa saakees bëreem dafa gaaw dafay dal te bu dalee du taxaw dafay pivoter dafay def rotation technique lay bëree te te Reug Reug mbëru mbër la moo xam dafa am résistance bu xasee day dajale day mbër muy dajale mën na jàpp bu jàppee dafay dajale ba am ba am ba am li mu bëgg doo def action parce que loolu mooy loolu mooy loolu mooy système mu euh, rëg-rëg kon moo tax ma ne du ñu ay mbëru xeexkat ay bërikat lañu te combat bi ci bëri lay lay jeexee en sama doomu makkan ci combat lay waaw ci bëri lay jeexee. mais papa ñu bari bari nit ñi dañuy am nga am nga dafa am waxu fans mais ñu dañuy wax en tant que connaisseur rek en tant que lambaloog di wax ku xam lamb nekk amateur ñiy wax loolu dañuy far mais ku ne Sa Thiès moo dàq ku ne Reug Reug moo dàq bëri Sa Thiès da nga nekk si ku ne Sa Thiès moo dàq bëri Reug Reug yaa ngi si erreur ñaari mbër yoo xam bokkuñu Sa Thiès day bëri ndaanaan la Reug Reug ndaanaan la kon te ëppante wuñ dara ñoom ñaar boo seetee ëppante wuñ dara te Reug mu ngi door am baa boo xam ni taille la comme moom forme la comme moom ñu tolloo dayoo tolloo lépp Reug Reug mu ngi door am combat mel noonu kon moo tax la combat jànq ko combat de l'année la pour la wax kii moo mën dafay wax lu ko neex rek dafay wax waxu far rek mais nañ nañ nañ bàyyi ba arbitre bi gën a gën a siffle gën a loxoom ñu xool Sa Thiès waaw moo ëpp xam nga xam nga xam nga bëre bi du MMA du mbapat bëre dóor la bu ko fàttee mbakkan te li te te enjeu bi ci ginnaaw mbër yi dafa bari du MMA de du mbapat de bëre door la te saakees mën na bis Reug Reug mën na bis Reug Reug am Reug am na bis bu nekk saakees am na bis bu nekk mais combat bi makan sama doom di loxo dina dar gémmiñ de non bu yéeme comme nag non non du du dóor mu déedéet bëri lay jeexee non den xeex du am match nul mhm. bëri bu gaaw lay nekk bëri bi du weesu du weesu minutes wala 4 minutes mhm. bëri bi du mat cinq minutes bëri du wees deux minutes trois minutes du ko du ko weesu. mais ñu bari bari leen bu dañuy wax rek dañuy wax rek dañuy wax rek bëri la boo ko boo xam ne kenn mënu la natt fan la saa mën na mën na mën na gaawal bëri bi la mu yaakaaroon du ko am parce que saa day dem bu demee la la fay fekk Reug Reug bu jàppee est-ce que saa kees dina ko bàyyi mu jàpp est-ce que saa kees dina bàyyi Reug Reug mu jàpp dajale. est-ce que Reug Reug du intercepter du la Sa kon kenn xamul combat tactique la combat technique la amul ardo amul dóor mu daanu ci ci ci bëre lay jeexee bu bu bu Sa de bu xaw ma Sa Thiès day décoller xaw ma Sa Thiès déco bu Sa Thiès décoller dal ci ko Reug Reug la la fay fekk Reug bu jàppee Sa Thiès est-ce que Sa Thiès dina nangu Reug Reug téye ko bloqué ko foofu la lamb ji nekk dañu bàyyi xel ci loolu baax baax ñuy wax ñëpp ay wax far la ñuy wax rek mais boo ko rek cinquante cinquante la sama doom makan cinquante cinquante la. mais mais waaw moo tax man la enjeu bi moo bari Sa Thiès li nekk ci ginnaawam ak li xew ci ginnaawam yëpp moom dafa moom moom moom am na lu mu war a far moom Sa Thiès parce que yaa ma gën a xam journaliste nga. ah. ñoom ñaar. non ku nekk daan moo la war. ndax Sa am na lu nekk ginnaawam gis nga li ci ginnaaw bala ñàkk na. te am na lu mu ñàkkee te am na yu bari yu commentaire yu am ci ginnaawam rëg-rëg am na yu nekk ci ginnaawam lu bëri te xelam yépp si roi des arènes la nekk te ne te nee na waa caaro yi da indi roi des arènes te si bunt bii lay jaaree si saa kees pour indi le roi des arènes kon xool xool enjeu bi kon enjeu la boo xam ne ku nekk war nga am victoire défaite interdit moom si ñoom ñaar ñëpp mais nag foog am ku daanu foog am ku daanu waaye nag lamb la joo xam ne dina neex dina am folklore dina dina am culture dina am chaleur li ñu ñaan kañ moom mooy mu ànd ak jàmm rek te arbitre di vigilant baax xool làmb ju baax balaa erreur di am. waaw ci wax ba tamit ci sujet boobu mhm. li mu def. waaw démb li mu def sama doom Makan li mu def ci jàmm gën ba àdduna yëpp di ko coow dafa rafet. ndax lu rafet koo gis ku ne wax ko Siteu référence la Siteu modèle la Siteu Sénégal xamaguñ ko xale la boo xam ne am na jom xol bi rafet na démb te ku yéene la ku mën ay moromam lañu ku mën ay xaritam lañu te fàttewul démb te jox na ci ay moromam boo gisee Siteu keroog nu mu tax taxawee rek si Fodé yal na ko yàlla yërëm muy Fodé Dramé mébét yi mu mébétoon yëpp si ndeyam bëggoon ko si ndeyam ne bëggoon naa dugal suma sama yaay fu mu dëkk. sama ay sonn na te amuñu dara te jàppuñu ci dara di mëbat lu rafet en tant que doom bu góor ba xëy ba xëy suñu borom jël ko mu wuy ji di xaritu Siteu di wëlëreem di xaritu jàmmagën mu dem Siteu yooyu mu yooyu Fodé doon doon wax mu koy dégg mu réaliser ko si kattanu yàlla ànd ak ay xaritam Mama Lamine Abou Ndiassé bul laal caatu euh, fora boo boo lim boo limee jàmm nga doo fi jógee bamba bamba Siteu Touba euh, délégué bu Siteu Euh, Baye Sall bu Siteu euh, jàmb gën yëpp jeunesse sànq gën yëpp ànd nekk ci ginnaaw Siteu ñu réaliser loo xam ne si Fodé la jëm te tey mi ngi ci ma ngi ci këru dëgg te dañ koy fekk yàlla na yéex mu defal ko bii teraanga te tafal ko kër goo xam ne jar na 40 dugal fa yaayu yaayu Fodé mention spéciale ak Siteu ak waa jàmb gën yëpp. waaw du am du am si làmb nañ bàyyi Siteu bu baax xel doomu réew mi la. si réew mi la juddoo xale la nekk ci làmb ji làmb ji làmb ji jox ko teraanga mu jël teraanga di ko delloo ci ay moromam rawatina ñu ñu wujj bët sax ay moromam du am amul benn mbër bu koy def li mu def nii gisuguma ko te duma ko dégg te góobu mu am jël sa jël jël 40 millions defal ko ko xam sa xarit woon di nga jël sa reliquat def ko ci mbër def ko def def ko ci kër jox ko nit mu dëkkee muy social Siteu moom mooy social Siteu mooy ku baax Siteu moo am yar mu am taalibe te nag sëñ Sidi Alxuraan yar na ñooñu de te lii lépp bu amee sëñ Sidi la yar na xale yi teg leen si yoon jël njabootu jàmba gën yëpp wan leen lu rafet wan leen lan la taalibe di mel ay taalibe dañuy jàppalante ay taalibe ay taalibe dañuy waxante lu baax ay taalibe dañuy xeebante di yéenante jàmm te bokk benn quartier bokk benn wërsëg kon kon kon kon gàcce ngaalama ay Sidi alxuraan borom daaru salaam kontaan nañ Sidi bu baax a baax baax makkan sama doom ndax Sidi li mu def adduna yëpp ñoo ko rafetlu yaayam kontaan na famem kontaan na jàmbi gën yëpp kontaan nañ dëkk yëpp kontaan kon Siteu yàlla na ko yàlla defal jàmm ci barke sëriñ barke sëriñ Touba Seera Fall waaw. xam ne nga am waaw xam nga amateur yi ñoo wootee. Mhm. te ñun ci amateur yi laa bokk. association boobu ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko fondé ci laa bokk. Mhm. ñi ko fondé ci laa bokk. man président d'honneur laa bi ko yi daal di fo bi ko yi daal di créé ci kaw tribune Iba Mar ba ñëpp toog ñu ànd booloo bu ñu ñëwee di jënd teraanga di di di seq teraanga ci kaw tribune yi ba ñu créé station bi ba yi daal di jiite ko ba ba yi daal di bàyyi jox góorandoo yi góorandoo yàqu ci dara mi ngi ànd ak ay ay xaritam ay doomu ndey muy góor di jigéen ñu ànd di liggéey social ñoom yee nañ ma fu nekk heure bu nekk yee ma ko ñu yóbbu social ànd ak Mor Seye góorandoo yi ànd ak Ibra Diouf président vice président ànd ak Balla Diop porte parole ànd ak ànd ak Modou Baye Fall commissaire au yaa ngi dégg ànd ak Mor Diouf le trésorier ànd ak Bada muy secrétaire général bi ñu ànd liggéey ak membre bureau bi yëpp ak grand àll bi mi ñàkk jaan àll ak Birame Ñing ak Matar Mbay ñu ànd liggéey association bi góor ñi Maam Jaara bu Tafatine Maam Jaara bu Njël Jonn Siga bu Tafatine Rokia awawan ndey sekk ñu ànd di liggéey ñu ay xale yu xam ni am jom bëgg làmb avancé yokku làmb ku tëgg làmb ñu ñëw jàppale la ba sa ba sa journée réussir tey ñooñu ñoo xewle muy amateurs yi kon nag amateurs yi nañ ñëpp ñëw ñu ngi wala président Macky parce que xale yi makan xale yu am jom lañu du ñu yàq làmb fu billet cher ñoo koy jënd ñooy bale ñooy xool jàkka ji ci arène bi ñooy xool siège yi ñooy xool douche yi ànd président Gora di xool arène bi di waxtaan ak supporters yi ak fan ci club yi pour ñu dal bañ yàq siège bala bañ a damm robinet pour arène bi ñu gën ko maintenir defar ko ndax loolu la président Macky Sall bëgg moo tax ñu ngi si woo président Macky Sall di si woo le ministre Yankhoba Diattara le nouveau ministre nga xam ni gis nga arène bi keroog jël na 200 éléments yoo xam ni dugal leen si arène bi pour ñu pour ñu mën jël euh, euh, entretien bi te loolu ñu soxla ci moom muy ba Diattara mu liggéey si arène bi loo xam ni ñun ñëpp dina amateur yi di leen kontaan ci parce que lamb amateur te amateur booy seet amatul ñii les jeunes amateur les amateurs les les les amateurs de de lutte du Sénégal ak le président Ngor Ndoye ñoo fi nekk di defar lamb ji di woo CNG bi di invité di invité ménager yi di invité fan ci club yi képp ku amateurs yi musa taxaw sa journée ci promoteurs yi jàppale la ba sa jour ba sa ñu ngi lay woo woo nañ ñëpp woo nañu axlu lamb ñu ñëw jàppale amateurs yi parce que lii lépp social rek lañ ko social rek parce que ñu jàppale jàppalante suñu biir ku feebar ñu faj la ku am soxla ñu jàpp si ku am jafe-jafe ñu taxaw si loolu képp moo ñu tax a jóg moo tax ñu ngi tëgg làmb diggante Batista 2 ak Boy Sadio bu Lamtar sama doom bakkan waaw combat boobu nag daanaka booy seet moo moo daan booy seet booy seet moo moo moo non non moo yóbbu ñëpp parce que Washington gis nga ak ñaar dërëm ak yéen bu diis keroog rek xool ñëpp sedd kenn du Washington kenn du yenn bu diis comme la boo xam ne Samba Ndour mi ko tuddee yàlla na yàlla guddal fanam te yàlla may ko wér nit ku baax la nit ku jar nit ku jar sargal la ndax taalibe Sëñ Tuubaa la te mu ngi def lu baax ci réew mi te te vraiment mu ngi jàppale doomu aadama yi kon suñu ko tuddee bu ko association des bu ko amateurs yi sargalee tuddee ko tuddee ko Washington ak yenn bu diis kon gàcce ngalaama les amateurs ak le président Gora Ndoye kontaan nañ si kontaan nañ si journée boobu trop waaw maa ngi a waaw xanaa di di di kontaan ci yow rek si te am nga dañu xaw a bett nii sax ba dañoo xaw a jaxasoo di nuy di la nuyu bu baax di nuy sa papa di ko ñaanal yàlla guddal fanam yàlla defal la jàmm di journée bi la quatre la Mor Diouf lañuy ñuy woo le trésorier l'infatigable Mor Diouf di remercier Khadim fay di remercier Masek di remercier Fadam di remercier le président Gora di remercier Baba jaw bu baax a baax kenn du ko fàtte ah di remercier Abdoulahat Diouf borom Touba Belal borom pono yi ak Papa Ndiaye Abdoulahat kenn du moom ci yaram ak tegginam ci bëgg association bi ci jàppale doomu adama yi ci socialement ko kenn du Abdoulahat di nuyu jëy seen ci taxawaayam ci association bi di nuyu nag bu baax grand àll muy nit ku baax di mag mu baax nekk ci association bi di defar musul yàq dara di kontaan ci jigéen ci association bi yëpp ñoom Siga ñoom Mam Diarra di kontaan ci ñoom ñëpp di kontaan bu baax ci association bi nag di wooti la 4 samedi muy suba na ñëpp ñëw jàppale association bi ndax association bi kat ay amateur lañu te amateur ku wax làmb wax amateur te amateur ku am làmb ku ne jàppale nañ kon ñoom ñoo aaye bàyyiwuñu kenn di woo ñëpp ñu ñëw teew ci bis bi la 4 diggante booy Sadio ak Batista 2 spécial bi nekk nekk boîte vocale ak Mame Balla numéro 2 diggante Allemand ak Ndiol Waalo combat la yoo xam ni Sénégal ñëpp ñu ngi xaar ay jeune espoir lañu ñoo xam ni ñëpp combat yi boo seetee 10 combat yëpp mën na nekk grand combat mais en tout cas kontaan nañ ci président Gora Ndoye kontaan ci association bi kontaan ci ñoom Mor Diouf kontaan ci taxawaay bi di ñaan yàlla daal yàlla defal ñu jàmm ba samedi lépp réussir ñu ngi woo ñëpp nañ ñëpp mobiliser na mbër yëpp mobiliser ñoo fay ñoo fay njukkal. amateurs yi ak président Gora Ndoye parce que lebal nañ leen ko kon nag lii mooy wax ji di woo CNG di nuy Bira bu baax le président du CNG waaye di nuy Bira Sène ndax nit ku baax la mi ngi doxal làmb di wax làmb daal jàmm lañ ci soxla non à la violence la jàmb ay famille lañu làmb famille la ndax làmb day boole mais du du tàggale mukk ñu ngi wax ak làmb yëpp di wax Sénégal ñoo ko bokk benn bopp la ñu ñoo ko bokk kenn mënu koo xar ñaar ñu bokk ndey bokk bàyyi jëm jëm avancé suñu Sénégal di woo jeunesse bi nag maa ngi koy ñaan si sa micro di woo jeunesse Sénégal bu leen kenn manigancé bu leen kenn dugal si ay problème ëllëgu réew mi seen loxo la nekk bu leen benn politicien dugal ci ay gàmm pour réew mi ëllëg muy yàqu ndax kat dañ ko soxla feneen fu dul yàq kon maa ngi maa ngi jaajëfal jeunesse su làmb ak ak ak famille làmb di woo famille làmb yëpp ñu bokk ndey bokk bàyyi joxante loxo te yénente jàmm ndax Sénégal jàmm la soxla ndax Sénégal alaaj Malick Sénégal sëñ Bamba sëñ Sénégal sëñ naa limaamu Baye Niass Sénégal jàmm rek moo fa xaj dara xaj fu jàmm kon yal na jàmm do yal na na yàlla dolli jàmm ci réew mi ci barke Cheikhul Khadim dara yi maam Cheikh Rafal barke Cheikh Baye góor sama sëriñ di siyaare ñëpp di la siyaare di kontaan ci yow di nuyu waa kër gi yëpp jërëjëf